asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki internet yi nuy seetaan kenn ku ci nekk ñoo ngi lay nuyu ci sa tur ak sant di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru di ñaan yàlla yàlla guddal fanam di ci teg sëriñ Seex Jëmb Faal di nuyu sunu woy wayjur yi ak sunu mag yi ak sunu rakk yi di siyaar ñëpp bàyyiwul kenn di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ Daali Njaay mooy taalibeb sëriñ Touba dëkk Touba juddoo fi yaroo fi nekk ndaw loo xamante ni ci daaray sëriñ Saaliw la jàngee alxuraan ba wàcc yaroo ci keppaaru sëriñ Saaliw juddu fekk sunuy maam ak sunuy waajur di yëngu ci wàllu ñaan ak ci wàllu fàcc yàlla suñu borom dogal bi nu amee ngërëmul sëriñ Saaliw ba ñibbi si suñu kër waajur fekk suñuy wayjur di ko def ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi ba yàlla suñu borom dogal suñuy wayjur jox ñu ci ndigal ñu koy doxal comme ni ko suñu wayjur daan doxale kooku mooy sëñe daal wàllu faj moom ku ne faj eh, ci sunguf ak reen ne wàllu ñaan ndax ñoom ñaar dañuy maanaam ñaari jëmm yu bokk nday ak baay ndax eh, munoo koo def it te boolewoo ci alxuraan ndax garab am na garab yoo xam ne day dund am na garab yoo xamante ni yu dee la te am na ci garab yoo xam ne bu dundee lay mën a faj am na ci garab yoo xam ne bu dee lay mën a faj am na ci garab yoo xamante ni dafa am noo koy wutee ak waxtu woo koy wuti ak heure yoo koy wuti te yooyu yëpp boo xoolee la nga koy wutee ak la muy laaj lu ci bëri day dellu ci alxuraan kon munoo faj te jàngoo alxuraan am na nag ñu koy def waaye wax dëgg yàlla faj mi nga xamante nii moom la ñuy def man sëñe daal yi moy fajj mi nga xamanteni ni lu ci bëri mang koy ci alxuraanu karim ak suguf ak reen lepp lu ni def ci walu alxuraan lañ ko tek ak ci suñuy ndigalu wayju ndax waxna la ci sa biir samay biir wax na la serigne saaliw moo ñu yar lan yaro ba yalla suñu borom dogal mu yóbbu ñu daara bi ni wax jannatul mahwa fa lan jàngee alxuraan ba yalla dogal ñu wacc ñibisi suñu kër wayju suñu woyjur ndigal lim ñu jox mooy ñu jàppale ko ci liggéey bi bin ko ci jàpp dee jàppale ba yàlla dogal muy mag nam ko daan defee munatu koo defee te yàlla dogal xam-xam bi nekk ci ñun ak maanaam secret yi ñu jël programme bi di ko doxal ci ndigalam waaw dañ koy def di ko jëlee ci alxuraanu karim ak suñuy ndigalu woyjur ci wàllum faj métier la moo xamante ne ni wax dëgg yàlla métier mu mu baax la waaye bëri na rax yu ci am bëri na it programme yu ma ci gis léegi yoo xamante ni bu njëkk amu si woon maanaam ci fajag ci wàllu ñaan yépp ndax léegi daanaka comme ni ma koy faral di waxee rek di nga gis koo xamante ni day nekk ci dara gis la nga nekk ci xëy na yàlla may la si teraanga mu jàpp ne lii ay fals la dem di la ci roy waaye lu yàgg-yàgg ci fitna la ciy mujjee wala ci problème nekk na loo xamante ni lu baax la comme nit ñi ñi ngi koy def di ci réussir nit ñi ñi ngi koy def di ci xam nga ci misaal nit ñëw ñaan lu la nga ñaan ko soxlaam faju mën naa yëkkati àdduna li ci biir may la ko ndax xolam day sedd su dee nit ki toog fële jàpp ak ragal yàlla gëm yàlla nekkul ci moom mën naa jéem a dem defi ni ngay def foog ne maanaam lii bu ci defee bu ci tappalee wala mu def ci naka sudul noonu mën na cee am li nga am loolu maa ngi koy ñaawlu waaye lu baax la ndax ñi ngi ciy faj muy wér ñi ngi ciy ñaanal ay nit ñu ci gis seeni bopp waa jàngoro yu siti nekk na jàngoro joo xamante ne nii lu yàgg la ci askan wi bu njëkk mag ñi toppum sët lan ko daan wax nekk na jàngoro joo xamante nii néewaay ne nit kuy dox te amu am na ci ñum fés am na ci ñoo xam ne fésul ci ñoom sit it ba léegi am na ñaar am na bu góor am na bu jigéen ndoxum siti kum nekk ci moom ni nga koy sentiré siti matière bu nekk ci nit rek bu jàngoroy siti nekkee ci moom dem ba yàgg ci moom am na lu muy waral ca matière boobu bu dee ci tànk la am na siti yoo xam ne nii mën nay jàpp sa suufu tànk muy tàng wala say xarante yi baaraam di weex di xolleeku di xesan di jàpp say baaraam muy ñuul di jàpp sa euh, suufu tànk yi maanaam muy xar man nay jàpp say oom muy metti waaw mën nay jàpp say tànk yi muy metti mën nay jàpp ndigg li muy metti man nay jàpp it maanaam sa biir di faral di tàng lu bëri wala sa yaram di tàng di def ay picc wala ay taas wala ay ër mën nay jàpp say nopp muy xesan lu bëri di nga gis koo xamante ni fu mu toll du tàggoog jurgóor ci noppam wala loo xam ne da koy wokkee nopp bi kooku jàngoro yu siti moo ne ci moom di nga gis koo xam ne du tux du def benn xeetu kii te foo fu mu toll ay bëtam day xonq loolu jàngoroy siti dina ko def di nga gis koo xam ne jàngoroy siti dina dem ba dural ko mu lel bopp bi du am karaw di nga gis koo xam ne bopp bi day di am ay karaas wala mu mel ne lu am ay gambu di nga gis koo xam ne siti dina la dina ko jàpp ba yàq ay bëñam di nga gis koo xam ne nii siti dina ko jàpp di waral nopp yi di riir maanaam ay bëñam du baax maanaam boo xoolee baat bi chaque jour day mel ne lu am ay xub wala muy xolleeku di xasan yaram wi di tàng dina jàpp nit ki ba ay tuñam di wow fu mu toll nga xamante nii tuñ yi bu ci diwul dara day xar dinay jàpp ay baaraami loxo yit maanaam xarante baaraam yi di mel ne luy xolleeku dinay jàpp ay we dinay dëgëral ay loxo jàngoro la joo xamante nii bu yàggee ci yow lu muy gën a yàgg ci yow di am tawat yu muy sabab ci sa yaram képp koo xamante nii nag nii ñu ko waxee noonu nga ko sentiré incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam la koy fajal ba mu daj xam nga li waral loolu jàngoroy siti eh, bu nekkee ci nit ki fi mu ne di nga gis koo xam ne jàngoroy siti dafa nekk ci moom maanaam muy sentir yaramam di tàng yaram wuy tàng di xesan bu sangoo saaboog njàmpe yaram wi weex tàll nga xam ne bu sangoo rek ndox bu ndox laalee yaramam rek bu fendee yaram wi commencé di xesan siti boobu mën naa dem ba wàññi kàttan am na ñoo xam ne seen siti day dem ba wàññi seen awra nam tolloon tollatu ko siti day dem ba oyofal màndiw ba nga xamante ni góor gi mën naa sëy lu yàgg te du am doom waaw ndax màndiw bi mooy oyof du am lim bi nga xamante ni taux bi mu war a am du ko am waaw nekk na jàngoro boo xam ne nii dinay indi néew kàttan waaye ca na mu koy indee mooy day oyofal sa màndiwo di la def booy sëy ngay gaaw a pare wala muy delloo sa awra bu jógee di gaaw a wàcc wala sa awro bu jógee du taxaw bu baax wala booy sëy di gaaw a pare nga xam ne kon siti lu muy gën a yàgg si yow di la jural yeneen tawat yoo xamante ni mu ngi ci yaram bi waa xam nga luy wàññi kàttan lépp loo gis lu nekk am lu koy wàññi te la koy wàññi maanaam fexe mu koy yokku rek bu yàggee mën na laa jural tële waaye nag tële am na leneen lu ko mën a sabab ci doomu aadama lu ci mel ne faru rab ndax ndaw li nga xamante ni wala ki nga xamante ne nii dafa amee faru rab nekk ci moom di ko géntiloo di sëy wala mu koy xër muy fawe boppam nga xam ne fu mu tëddee dina fawe boppam ba am lu génn si moom di nga gis rab def ko nit ba nga xamante nii dafay dem ba tàmb ko ba bu tëddee li fee fawewul boppam ba man ni wam génn ñu baal ñu si wax ji rek du mën a nelaw da ngay gis koo xam ne da koy def ba pare di jooy di am lu ko metti lu ne mu koy def te du ko mën a bàyyi bu bu lu mu ci mën a waar wala lu mu ci mën a wax teewul bu tëddaatee da koy def di nga gis ñoo xam ne da leen di géntloo di sëy léegi ñooñu rab di leen defloo noonu bu fekkente ni teeluñu see jóg ñu faj ko mën naa dem moom it bay jàpp sa awra bu jógul day mel ni awra bu xale awra bi day mel ni day lu dellu ba mel ni awra bu xale bu awra bi jógee du taxaw bu baax bu jógee day gaaw wàcc booy sëy di gaaw a pare kooku ala kulli aal boo ko fajul mën naa dem ba jural la tële képp koo xamante nii ci kàttanu yàlla nii ma ko waxee noonu nga koy sentir nii incha allahu rabi bu déggantee wala nga ñëw ba ci man ma fajal incha allah waaw traitement yi du traitement yuy diire bu dee ci jàngoro yi ndoxum siti la wax dëgg yàlla li koy topp ci nit ki mu faj ko ci moom ba mu wér quinze jours ci la traitement bi di diire bu dee néew kàttan bi la ci 15 jours lay diire waaw traitement yooyu lañ siy def. ul de jàngoro la joo xamante ne nii kim dal ni mu koy sentire ci moom maanaam day mel ne dafa am bul bu nekk ci biiram di wër. léeg-léegi mu nekk côté bi léeg-léeg mu nekk côté bi léeg-léegi muy mel ne luy yéeg ak a wàcc léeg-léegi muy mel ne lu wër ba dem ci digg ginnaaw bi am na fu muy toll nag mën naa koo faj waaye am na foo xam ne bu fa xasee ba àgg sama xam daf siy jeex kooku li koy digal mooy mu dem hôpital ñu opéré ko wala ñu xool beneen faj lu si war waaye bu fekkente ni àggagul fenn ngay sentir biir bi di gonfale léeg-léegi di mel ne luy sol air di faral di rey nga ciy sentir bul boo xam ne boo làmbee da nga koy daj muy wër am na foo xam ne bu fa àggugul mën naa koo faj waaye am na foo xam ne bu fa àggee mënatuñ koo faj waa jërëjëf xam nga yi nekk na jàngoro joo xamante nii jàngoro ju doy waar la te la koy sabab ci nit ki bokk na ci jàngoro yu siti bu dem ba yàgg ci nit hémorroïde jàngoro la joo xam ne képp kum dal ni nga koy sentir dangay ngay sentir sa biir di def ay ballonnement di sol air ngay faral di tàyyeel di seere di nga gis koo xam ne ab seereem day dem ba ci ñaari fan ba ci ñetti fan ba si ñeenti fan nga gis koo xam ne mën naa toog lu jege semaine du dem toilette kooku hémorroïde la di nga gis koo xam ne hémorroïde itam da koy jàpp muy géex wala du yàgg ak njàpp muy faral di ngelawal lu bëri wala du yàgg ak njàpp kooku hémorroïde moo ne si moom di nga gis koo xam ne hémorroïde daf koy jàpp ba ndiggam di metti wala boppam di faral di metti wala bu tëddee bu yeewoo daanaka maanaam bu waroon a xëy 8 heures mën naa tëdd ba 9 heures wala ba 10 heures hémorroïde day def noonu di nga gis ñoo xam ne buñ buñ demee toilette maanaam seen suuf seen suuf dafay saf maanaam wala maanaam am picc boo xam ne dafay génn ci seen suuf kooku bu demee ba àgg foofu loolu la naan hémorroïde bi génn ñu naan ko piccub kajoor waaye képp koo xamante ni mi ngi lay dale noonu te su fekkee mi ngi lay dal moom it boo si teelu tëjóg faj ko mën naa dem ba jural la néew kàttan mën naa dem ba jural la néew kàttan di nga gis koo xam ne hémorroïde tam daf koy ŋàcc muy jeex dootul amati yaram ba pare dafay faral di ngiis rek di jeex ndax seere bi muy def bu lekkee du gaaw a rees bu lekkee maanaam lim lekk du rees du dem toilette normal biir bi def ay ballonnement dafay dem ba daf nga ngacc li nga gis koo xam ne bu demee toilette day saññe maanaam deret moo ëpp ci lu muy génn yooyu yëpp ay xeetu hémorroïde la yoo xamante ni man saññe daal yi dama koy faj ba mu dañ ci kàttanu yàlla ak mbaaxam képp kum dal soo ma woowee téléphone foo mën a nekk buñ ci waxtaanee ba déggoo man nan laa yónnee garab yoo xamante ni soo ko jëlee incha allahu rabbi mu comme ni ma koy faral di waxe ñi ni dégg man nan ci seede garab bép garab bo xamanteni man maa la ko jox sëñe dal bu dé garab gu yok kàttan la wala garabu siti wala garabu hémorroïde so ko bu défé ci yow 24 heures te giso résultat bo mo wowe fo mëna nek man na la joxat sa xaaliss nga joxat ma garab garab mom bu dé garab gu bax la képp ku ko jël mu am ci yow 24 heures war nga gis résultat wa xam nga jabet bu fekkente dem na ba nga xamanteni manam euh, sa jabet dagg nan sa baaraam wala ñu dagg sa loxo wala sa tànk wala jabet bi am góom mënuma koo faj waaw dëgg-dëgg bu fekkee àgg na foofu mënatuma koo faj waaye nag su fekkente ni tawat bi àggagul foofu te yaa ngi def ay régime normal am na ay garab yu la ciy jox yoo xamante ni soo ko jëlee insha allahu rabbi du la sonalati ci sa dund suukar si dootul yéegati dootul wàccati te dina ko régler ba mu normal insha allahu rabbi waye amna fo xamne bu fa agge mom munu mu koo faj waa fibrom fibrom jigen ni la ëpp lu muy dal man na ne sax ñom lay dal di nga gis jigen go xamne fibrom da koy dal ay moromam man na no japp ne da tol kum dalit way na mu dal la nek ci yow dem ba commencé mag nga mën jël ëmb wa ndax fi dom di placé wu man naa la fa lay da dafay def ben genre palaat bo xam day ne ci bir rek di mag di nga gis ko xamne da dafay dem ba manam bir bi day reuy lol. waaw waaye nag am na foo xam ne bu fa àggee mënuma koo faj dama laa sama biir wax ne la li may def maa ngi koy defee ci samay ndigalu wayjur ba pare tarbiyu sëriñ saalihu mbàkke ba mu ñaanal ñu ñu dellu te ba mu ñuy ñaanal it danañu ndigal liñ leen jox mooy la seen baay nekk bu ngeen demee jàppale leen ko ci li may wax it ci télé laa koy waxee te lu leer la ku bëgg xam ndax li may wax dëgg la wala dëgg tàllal sa oto nga ñëw Tuubaa soo duggee nga laajte kan mooy sëñ Yadaali Njaay waaw li ñu leen si mën a wax maanaam mooy dañuy def ci ay wàllu ñaan diggante góor ak jigéen ñu bëggante waaye du lépp loolu ni ma siy defee ay ñaan soo ma woowee wala nga ñëw si man ne ma dama bëgg kii wala ñun ñaan dañoo bëggante balaa ñu siy def ay ñaan dañuy xool ba pare ndax seeni wërsëg ànd na wala seen rawaan ànd na ba pare ndax néewaay na maanaam nga gis koo xamante ne nii dafay bëgg loola mbir rek te mbir moomu gën ci moom di nga gis ñaar ño xam dañuy bëggante te fekk na buñ andé ku goor ki du gudd fan wala ku jigen ki du gudd fan wala ñom ñaar maanaam wërsëgu ngelaw la ni la ni la nuy yore luñ yor du taxaw ci seen loxo wala seen and njabot du ci am su boba dama la naan kat carrément li ak li mo nekk ci seen digënté so teyé ne ma ñaanal ma duma du ñaan wa li ni def ñaan moy couple bi nga xamanteni yalla dogal na nga tak sa soxna njabot ak mom am ak mom ay doom bis ñëw mu gis leneen bëgg laa war wala mu bëgg a dem te fekk njaboot am na si ay leer am na si te yaakaar am na si te ak bëgg nekk na si moom seen diggante yéen ñaar kooku moom dan la siy defal ñaan yoo xam ne si diirum ñetti fan buñ la ko defee joxe nga suul ko sa kër bu soobee Serigne Touba soxna si mer mu fu mën a jëlee dina ñibbisi su dee ñaar ñi bëggante la te takkanteegul seeni kilifa ànd ci wala yow ko góor ki nga bëgg kee bëgg la mën nañ cee def ay ñaan waaye bu fekkente ne nii maanaam danoo bëggante ñoom ñaar te fekk du ñaar ñu war a sëy wax dëgg yàlla duma si def ay ñaan maanaam daal ci gàttal bu dee dégg fi ma la bëgg a mooy diggante ñaar ñuy bëggante moo xam muy nit ku ñuul wala nit ku weex wala ñaari nit ñu weex wala ñaari nit ñu ñuul ñu ñuy dégg mën nañu cee seede du ni ñu ñaanal ñu rek ñu tëb tëb ñaanal la ci balaa ñu see def ay ñaan faaw ñu xool ko ba pare waaye nag lu ñuy def la waaw xam nga cat moom olof njaay dane bu rëyul semmal fimne di nga gis nit ko xamanteni dama na dem ba japp ci yaramam ne dañ ko liggey fekk chat mo ne ci mom chat bu nekké ci yow man ngay sentir sa sa loxo dara lu ci taxaw lo yor mu dem koy jëflentel balaa manam ngeen di wara and pour def li ngeen li ngeen li ngeen wara jëflenté sen digënté waaw dina waral lit manam aw yaram tilim ba nga xamanteni manam maanaam gu baax sax du mëna taxaw sa yaram waaw te nag cat amul kilifa amul kii amul kee cat ci ñépp lay nekk ku ci bëgg a mucc da jaar ci yoon woo xamante nii maanaam jël ay mbir yoo xamante ni moo la ciy muccal ba pare la nga xam ne moo la ko mën a teg nga koy moytu loolu nag ay mbiri biir la lu nuy sangat nit ki la mu dañ ci moom dañ ciy defit ay ñaan ki mu nekk ci moom dañ ko koy raxasal ci aw yaramam ba yaram wi set ba pare jox la lu lay aar ba cat loolu dootul mën a te si yow dara ki nga xamante nii rab moo nekk ci moom di ko géntloo di sëy wala lu mu yor bu taxaw si loxoom ku mu jëflanteel mu war ko bu yaakaaree mu tas boo ne la woon kaay ma jox la big bi tey boo ñëwee du la ko jox ba pare teg si ay mbir say mbir dëgër lool boo dugalee ay kayit du sotti loo lijjanti mu mu am problème kooku rab mën naa ne si moom liggéey mën naa ne si moom ku mel noonu it dan la ciy defal ay ñaan defal la ci ay mbir yoo xam ne ak ay tegtal bu soobee Serigne Touba li nga ci bëgg yàlla mën na la ko see defal incha allah am na ñaari mbir yu ko tax a jóg moom jaaro yi am na boo xamante nii genre fitis lay doon maanaam bayra lay doon boo xamante nii day jàpp nit ku weex di jàpp nit ku ñuul muy lu wér loo xamante ni mi ngi ci alxuraanu karim muy lu wér loo xam ne mi ngi ci alxuraanu karim waaye bennub jaaro kese ku la wax ne la mën na cee faj ay aajo bennub jaaro kese ah man de xam-xam boobu xamaguma ko waaye dañ ci liggéey yoo xamante ne nii lii ci garabu garabu garabu olof lañ koy jëlee am saar yoo ko jënde am bis yoo ko jënd am ci loo ko booleel ak laytaay bu muy àndal boo xam ne mi ngi ci alquranu karim balaa nit ki di jëfandikoo jaara bi loolu lay jëfandikoo ba pare di soog a jël jaara bi di ko jëfandikoo bu soobee Serigne Touba sa diiru dund li fekk ni ngi yow foo dugg ñu ràññee la lépp looy lijjanti it dina gaaw a sotti te it loo yor dina toog sa loxo maanaam loolu genre bayra lañ koy wax boo xamante ni maanaam eh, dañ koy buñ ñu gisee te yàgg jëflante ñun xam nañ ne loolu nuy def la nit laa koo xamante ni du ma wax lu ma gëmul waaw lépp loo ma wax laaj ndax man nga koy dama naan la bu ma ko manee dama naan la man naa su ma ko mënul ne la mënu ma ko waaye dañ ciy defar ay jaaro yu am solo yoo xam ne day ànd ak kaaraange ak ubbeeku ak ay laytaay yoo xamante ni képp ku ko jël bëgg bayre wala nga bëgg ubbeeku wala musulaay ci kàttanu yàlla boo ko amee te ñun la ko waxee nga defee ko noonu sàmmee ko noonu ndax it gàllaaj sëriñ mën na la koo defaral ba pare du xam li koy aar du xam li koy téye ci yow man nag bu dee bu ku ma bu ma la si mën a defaral bu ma la ko defaralee ba pare dinaa ni la gàllaaj gi de soo bëggee mu yàgg si yow del moytu lii ak lii ak lii ak del doxee nii ak lii ak lii te loolu yit la ma lay digal yàlla loolu la bëgg ci jaam ñëpp soo ko defee rek bu soobee Serigne Touba kaaraange gi day mën a yàgg si yow bu dee bayre it day mën a yàgg si yow. di ñaanal suñu mbokki tukkikat yi ak suñu mbokk yi fi des yàlla suñu borom ubbil leen seen i buntu wërsëg mucc leen ci lépp luy lore. yàlla defal ñu kaaraange gu sax ci ñun te muccal ñu ci cat muccal ñu ci rab seytaane ayu buur ak ayu baadoo la tënk ñu ci jub ak sell ak maandoo ku jaamu yàlla yow it di la sant di la gërëm di la ñaanal jàmm